mbokk àddina mooy waaj a tukki wala boog nit ñi ñoo ragaltul yàlla lii xew nii ci réewu Sénégal bi ndax Sénégal mi jotunu loolu jaabaa jombe ji nekk ci ku nekk di xas sa morom kenn bàyyul sa nga xam ne tey ñu ànd ak président di ko gëmloo ne yow rek lañ bëgg lu wax mu ne goon mu jàll leen lu ne ci plateau télé yi ndax dëgg-dëgg gëm nañ président lu tax ñu war a loolu nañ xool démb ana ñaanoon Abdoulaye Wade doon ko wax ne diw sa noonu la pourtant ana ñooñu tey ñoom ñëpp tey ñu ngi ci nguur gi nañ jël misaal lu Macky defoon du dul taxawal askan bi taxawal réew mi neneen kii day dafa yor ndombay tànk dañ ko war a ñu dàq ko waa boobu ana Ousmane Ngom ana Souleymane Ndéné ana Wokudu Ndiaye ana ana Serigne Mbacké Ndiaye pourtant la ñu ngi ca nguur ga ci mbaxuus bi lu tax wanawuñu woon seen fatu ànd kii day deful dara waaye ana ñooñu tey bi Abdoulaye wàccee fa lañ ko ba ñoom ñëpp dawaat ñëwaat si tooyam moo tax président ñi lay wóor ni tey nekk ci plateau télé yi naa la diw sa noonu la diw sa noonu la ñu ci bëri ci ñoom bu dul ñëpp mooy poste ba nga leen jox ak mbaquus mi ngi leen di jox li koy ñaata ministre lañ wàccee ñu nekk ay kon lii war naa yee ku ne la na lay wax nag ji ji koy la weñ moom xam nañ ko luy jikkoom mooy fu tooy mu dal